deuxièmement man musuma langaamu ci kenn duma langaamu ci nit man dama am franc parler bu ma gisu gis nga Ousmane Sonko ba mu defee lu dul yoon damaa génn wax ko Mamadou Mbodj le cas de Mamadou Mbodj nga wax dañoo dédire dafa am loo xam ne dañ ko F24 moom moo ñu seet si woon ñun au niveau de Yewwi Sénégal ñu ne ko ñoom ñu ne jàmm gën troisième mandat ñu ne ko nag ñun dañuy xeex troisième mandat waaye une fois du doon xeexu personnel ñu d'accord tënk ñu dugg si li ñu naan plateforme ak ñeneen ak ñeneen waaye Yewwi sax dañu doon xeex ñun ñu ne leen du leen fekk si ñoom ñoo ñu fekk si bi ñëwee ñu ne leen point yi mën nañ ci déggoo bu fekkee ne mën na am danañ bokk ñu ne ok ñu dem ba si biir ñun ñoo njëkk wax ni réew mi dañ ko war a waxtaanee parce que tension yi am ak climat yi ak fi ñu jëm nii bu ñu ko waxtaanewul leen sombre si foo xam ne Sénégal war fa àgg te président bi dafa war a woote dialogue waaw bi ñu ko defee trois avril président bi wax dialogue ñoom ñu ne ñu indi débat bi ci comité ex ñun ñu jóg ne F24 warul initier wu ci affaire ay parti politique parti politique yi ñooy décider dañuy dem wala duñ dem ñu ne léegi ku bëgg a dem nga dem ku bëggul dem yaa xam ñoom ñu xëy ñoom ñu doon récuser dialogue daan dialogue du fi am ak ay naxantale ay affaire yu dialogue yooyu xëy naan dialogue du du peuple léegi bi ñu waxee dialogue du peuple ñun ñu leen dara bañ demee ma ne leen wéyén war leen organiser dialogue du peuple parce que da ngeen récuser dialogue te ñun on bi dem na ci kii bi Moussa Diop benn gis naa ko si dialogue du peuple ñu dem dialogue bi ñu demee si dialogue dialogue c'est des commissions ñoom ñu ne di def bi ñu paree seen seen bi ma ne leen moom Mamadou Mbodj yéen li ngeen def nii si incohérent rapidement parce que d'abord yéen chaque fois di te direction bi ni ngeen koy diriger da ngeen ko bëgg def moomeelu société civile ak benn mënul nekk on demande votre démission man man fépp ku may àndal ànduma ak yow pour le parce que joxoo ma dépense yaakaar naa ne mënoo ma wutal lu ma amul du politique nag man question de vision ak programme laay ànd ak nit ànduma pour ay question de war ngeen ànd fi man bu ma bu ñuy non mais choix déedéet man musuma génn opposition je reste toujours cohérent si sama choix même opposition mais je dis la vérité parce que li nga wax waa ji langaamu man duma langaamu yooyu man duma langaamu